nee na eh xeex ba way sama ndey waxoon nañ ko dóor mu daan dina am cooki raak ñu koy jamante ñu koy joonante seetal ma lii xoolal ma lii xoolal ma lii liiru gërëm ñu wuli baa jàmbur wuli baa jàmbur wuli baa jàmbur. laa ilaaha illallaah waa ba lii lan la lii lan la lii lan la pël liiru fu mu jëm wuli dem na ardo wala demul ardo ardo nee na ko ñëwal maa ngi tam jaan yóbbu na wuli ardo jamaïcain yaay seytaane jamaïcain yaay seytaane yaay fulkat avertissement pour Lirou Diane sortie délibérée aca ah, waaw mais ñaar ñi lan la baa leen naqasaale ak tapale xeex ba way sama ndey xeex ba jolli waat na liiru jaan liiru jaan wulli maa kenn daanu maa kenn daanu maa kenn lan la lii lan la lii lan la waa Mansour ñii seen lan la ñii danoo mës a bokk lan la pël xeex ba so ñu ngay xaar Mansour ñu ngay xaar liiru liiru dawaat na liiru dawaat na laa ilaaha illallaah xeex ba xeex ba Mansour xeex ba ci xeex ba cee te te te te ngi ŋang so lu muy ŋang fan lañ ko dóor liiru lu xew nee daf ko dóor ku irrégulière liiru lu liiru mën a doo yeggali. du ma bëre. lu tax may dóor ci ginnaaw saako yi. ah ñaata yoon la ma dóor ci ginnaaw saako yi. ñaata la ma dóor ci ginnaaw saako yi mu sedd. ah xool xool leen rek xam ngeen làmb yéen. lan la si yoon wax xam ngeen ko. liiru nee na dootul bëree. nee na dootul bëree. ndax da nga ko dóor ñetti yoon ci ginnaaw saako na dootul bëree ndax da nga ko dóor ñetti. na ko ci xaarib njaag fépp. ñu ñu ko. Lirou Diane nga ca docteur ya ñu koy xool a njàg ba gisuma waaye am nga loolu na xari wule ak Lirou Diane ci diggé bi arbitre ne leen pousse man ñaar ñi xaw ma loolu jotale arbitre nee na wuli arrièreal arbitre xeex ba wuli demal nag wuli luy problème am wuli lu ko naqari tàng na Mansour wuli mer na wuli jaan victoire jox nañu liiru jaan victoire wuli nanguwul jox nañu liiru victoire jaadu na jom laay demee gis nga li ma def ci ginnaaw saako yi mu topp ma di ma dóor may demee jom daf maa dóor ci ginnaaw saako yi lii leer na arbitre wax mu ma dóor c'est pas normal. wuli lan la. waaw arbitre bi xamul la ma dóor ko ba mu daw mais la arbitre bi lan la. arbitre dafa jàpp ne taxaw yi ragal la tabat la mooy waaye duur yow léegi léegi léegi loo xalaat